pourcentage bi jeexagul ci diggante patriote yi ak waa APR ndaxte kat ay millions de parrainage ku nekk rek moom lay xëcc jamono bi ñu toll nii am nak ñoo xam ne rek ci waa APR yi dañuy jug pour wane ne kat am nañ lu toll ci trois millions de parrainage fekk jamono boobu nag moom mii di Kairé 221 di jot a xamle que ne kat mbir moomee amul ndaxte kat parrainage yu président Macky Sall tollagul noonu donte waa Pastef ñoom ñu ngi ci terrain bi boobu ba tey wante amagul lenn mooy firndeel que waa APR am nañ lu mot trois